day bëri kii ruus ruus. ki nga jaxaan ni na bàyyi xel. léegi saa sëriñ bu àgg na léegi monsieur le maire yow mi yaaru jàpp lu ñu am prix yow la nii nga defoon defaat ko ñëw yàlla yàlla fa jar surtout xaar yi nga faam bi ki nekk ci mi bett sana murun ne bicara di bismillah ah mani mani inspecteur doy baat dugaloon nga bii di ko joxee service Abdou Khadre bi pare waaye nee na ñëpp ne ñëpp ña taloo lii bu ñëpp ñaanee. ku ne na ko yéene rek bañ ko tufi ne ñëpp yéene ñaan gi bañ ko tufi waaye mbooloo mi doom bi tudd nañ ko ajaratu déggal si weer mi ñuy joontoo la prégodo yow yaa xulle du ko def lépp ci seen basa du xaatal waaye dugalaat bi boo xam ne du ko fiyaas yàlla yàlla fanta yaa xulle ne li ci am solo mooy ñu ñaanal bi mu doon jigéenu islam doon jigéen ju baax jigéen ju jaamu yàlla. nee loolu baax na waaye nag li mu ku ko am mën nga jënd Serigne Bamba rek la ñu am Serigne Abdou Khadre Serigne Massa Abdou Khadre maa defal doy na sëkk kàddu gu islam nga di tuuf na seen bas si ñoo la di bu sa yow sëriñ Balla Joor ñëw Mbàkke sëriñ Joor ñëw ñu defal di nii loolu maa defal ko ne ay bokkam teew